trop c'est trop trop c'est trop ñun président Ousmane Sonko du président wu PASTEF mais président wu Afrique la espoir wu Afrique la. loolu nag su weesoo dañoo bëgg a xamal Macky Sall am na yoon foo xam ne boo fa tolloo mënatoo arrière ndax xuloo bi nag ngi bëgg a dem ca cappaandaw ga te suñu eggee ci cappaandaw ga bu ko rombee xeex lañ jëm. te xeex moom bu fa eggee su boobaa yaakaar naa c'est trop tard pour ñu ne nañ fay daay gi xoddiku bala ngay lakkal. maître Abdoulaye Wade ak communiqué di lettre bi nga xam ne fésal na ko ñu ne dafa mel ni kuy gën a dugal Ousmane Sonko ab taskatu xibaar la xam-xam màcc ci wàllu politique te lay saytu moom Pathé Mbodj jàpp ne nag njiitu réew ma woon li mu gis rek ni Ousmane Sonko ni muy méttee bopp njiitu réew mi lay méttee bopp doomam ndax nag ci wàllu politique bi féete ci kujje gi sonk daa taxaw te kenn mënatu ko puus ñu teewlu ci Pathé Mbodj ci ak suñu naataango Issa Tinde Jokkool am nga jàngat bi ci mën a jàngat mooy jàngat bi ko borom dëj bi ci boppam di gisee di jooy dëjëm ndax bi mu ñëwee tamit da naan tekk déglu mu ñëwee bi da naan tekk déglu boo xëyee gis xiiroo di nekk ci biir Pastef nga xam ne xëy na kon eh, ni Wàdd taxawee du taxawaay bi nga xam ne moom la ñu seeti woon ndax am na ñu njëkk wax génne benn bataaxal boo xam ne ni la ñuy Pastef la di ŋàññ li Ablaye Wàdd wax ñu toog diir beneen bataaxal génn ñu ni oh, du woon suñu taxawaay dañuy wax naan Sonko mi ngi si mbir si guddi gu ba setagul xamaguñu nu mbir mi demee di xaar yoon nga taxaw ni waaw moom day li mu def dafa juum ba ñu dugal ko si ndigg su rax day mel ni da taxawal nii li ñu wax ni am na te fii ñu toll nii yaakaar naa am euh, Abdoulaye Wade bi nga xam ni kenn magatu ko si réew mi Abdoulaye Wade mi nga xam ne ni lépp loo xam ne ni xeex yel euh, ak doomu aadama ci lañ ko xamee woon mu munoon na di avocat munoon na tamit teeylu tuuti ba xam mbir mi nu muy demee waaye tamit Abdoulaye Wade dafa nekk ci kujje gi kujje goo xam ne ni ci ginnaaw ak néew rek dafa ñu naan ko du moom ak kii ak du keneen bu fekkee ni kenn ci naan kujje gi moom moo ko yore nekk tolof tolof xëy na mun na ko bës mu daanu comme ça mu wane ni moom ci boppam ak parteem PDS ñoom rek ñoo fi kuje gi ñoo war a jiite kuje gi amul keneen ko mën a jiite ay du yem ci bopp borom borom salon de massage yi ñu ngi koy bëgg a dund gannaaw nag bu kiné thérapeute yu Sénégal eh, amalee ndaje ak taskatu xibaar yi tey jii sax ñoom ñëpp dañoo bank seeni loxo ci seen liggéey bëgg nag ñu bokkul ci mbirum dàmp ak yax ñu génn ci seen loxo ba mu set ne sumb nañu xeex bi te duñ ci deltu gannaaw ndax mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr duñu bàyyi mu sedd dañ ciy raxasaale ba mu set wecc eh, kii di Fatou Bintou Diouf moo teewoon ca ndaje mañ doon amal ak taskatu xibaar yi caaxaan jeex na kinésithérapeute yi ñu daal di xamle li ni mel. journée morte bi nag dañ ko décréter parce que tout simplement.